Assalamualaikum, way groupe Jam jokul Mansour mo ngi len di nuyu di len sante di nuyu ñoom imam Sarr di ñom ñep dal seen xubbu tay bi mom jaar na yoon yalla na yalla yagal seen taxaway doolu len fan wu gudda man dama dugg rek dugg bi ma dugg ni jàmm la du jàmm parce que ki fagu ba nga la faju parce que dafa am ay affaire yo xamne gaay dañ ko commencer duggal ci dekk bi parce que man ci dega mo sax lañ ma wooyee ben soxna so xamne ni muy si bir groupe Jam jokul tuddee soxna Fatou Gueye moom daf ko bëggoon dugal sax mais dafa dafa xaw a daal am tuuti empêchement moo tax dugalu ko mais daf ma woo si këram ay doomam nag ñoom ñoo ko jënd daf leen fekkoon ñu jënd ko mu ñëw fekkee leen laaj leen lii lan la ñu ne ko si bitig bi moo koy jaay léegi affaire boo ko ibbee boo fóonee affaire bi sàngara dafa mel ni sàngara moo si ne dafa mel ni genre sàngara moom lay la xeet gi di xeeñ même Imam Sarr bu jaree man ma indil la échantillon yi nga gis ko ma indi ko sa kër nga xool boo fóonee da ngay affaire bi sàngara xeetu sàngara lay jox te lii danger la te ak fête ji di ñëw nii fet ji ñu nekk nii bëgg dugg si férié nii fin d'année bi xale yi lu ñu gis dañ koy jënd te lii boo sàgganul mu ngi si yeneen boutique yi vigilance nag parce que lii moom doy na waar parce que am na xale boo xam ne sax naan na jënd na si naan nag xale baa ngi nii tëdd di nelaw xaw ma affaire bee ko jàpp xaw ma mais affaire bi moom lii moom danger la waaw te daawul nawal nelaw heure bi mu ngi nii tëdd dama leen koy war rek ngeen gis mu ngi nii tëdd mu ngi di di nelaw te lii lii moom beneen affaire la te am na si yeneen xale yoo xam ne tam naan nañ si ñu ngi nii di kii xam nga rek mooy loolu bu buñ mënee jël nag suñuy suñuy devant ñu jël suñuy devant te yàlla tax lii moom danger la après ma dinaa jël échantillon yi Imam Sarr bu laajee ma indi ko sa kër ma ngeen xool bu baax xam ngeen fóon li si ne comme xeetu sàngara nu nag ah dëkk bi ni mu demee nii ah, état bi li ñuy wax ak ah, gars yi li ñuy wax tubaab yi affaire virus yi ñuy wax yëpp ba boo ñu ñu vigilant parce que buñ ko mënu lay jaaral si ay ay vaccin dinañ ñu vacciner si affaire xale ay tàngal wala leneen waaw parce que am na jour boo xam ne bonbon laa dugaloon mu am ku ne ma bonbon bi amul Sénégal bonbon bi est-ce que am na fii am na fii fii lu fi amul amul États-Unis lu fa génn tey day dugg tey léegi Sénégal nag beeboon nag ñu jël suñu matuwaay parce que dañuy jaboote day da ngay dem bàyyi fi sax njaboot te xamuñu nu muy demee école yaa ngi nii sàngara sax dañ gars yi dañ ko fay jaay lu nekk la ñuy jaay ay sase la ñuy def yu cent franc di ko jaay ngoon nag lii lu jaral partager la fu mu mën a ne ñu partager que ñëpp xam ne xew ñu teel a jël suñu devant lii moom ëpp na quoi maa ngi woon si Dagabon nii moo taxoon ma jóge sama kër ñëw parce que Fat dafa ma woo di ma expliquer ma naka loolu il faut ma dem dut si baaraam lii na kenn du ko jeex mu ngi ni yeen ñep gis ngeen ko mu ngi ni sangara lay lay nuru la gën nuru ko ki parce que jaay ñu pistolet li ñu jaay liquide bi nekk ci biir kan xamul lan la wa ma ngi leen di gërëm nak di leen sant ko wasalaam bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salam ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw man la muhammad mais attention bouteille bi ngeen di gis ni moy li doon circuler fan yi ci internet bi pour ñu def attention ne ñoo ngi jaay sàngara ci bunti école yi muy dugg ci biir école yi butéel bii ma téye nii sama doyen sama doyen école fii ci daaru cubb moom la ko benn madam jox démb madam bi ci élève la ko jëlee ci benn élève doyen bi mu ko xoolee gis ne butéel bi li ci nekk mooy sàngara ñoom jus lañ ko tegoon te ñoom jus lañ ko tegoon même ki ko doon jaay maire bi ko jaay xale bi moom bi doyen demee ci moom ne ko waayow lii lan la dana ko lii jus la man maa ko jaay xale bi kon na ñëpp xam ne lii egg na egg na dèjà mu ngi ci biir école yi man daaru ci bu fii waaw dañoo war a remonter ñi koy def maanaam nañu def opération dem ci école yëpp bunti école yëpp xool ñi koy ñi koy jaay war leen ko bàyyi de lii warul jàll ah sunu doom yi sunu rakk yi sunu jarbaat yi ñu ngi naan sàngara ci biir école yi ah, taxamuñ ci dara te lii danger la lii erreur la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nag képp ku naan sàngara ci àdduna du ko naan ci alaxira ah. te sàngara alaxira du du sàngara àdduna waaw lii lii daal vraiment lii lii lii daw na yaram daal wax dëgg yàlla sunu doom yi sunu jarbaat yi ñu ngi koy naan waaw nañ ci taxaw waaye vraiment nañu topp lii xool ca source ba fa muy jógee waa lii doy na waar waaye lii doy na waar trop te xale yu ko jot a utiliser waaw dañoo feebar waaw benn parent d'élève ñëw na. dégg nga loolu na koo xam ne bii bi am na koo xam ne ki waru ko bàyyi mais comme ni nga ko waxee rek. bi ñu mm-hmm. laajee femme bi. Mm-hmm. femme koy jaay moom dafa yaakaar ni jus la. non femme bi nañu wax fu mu ko jëndee. léegi nag dañu war a remonter ñu xool wan leen lii. wan leen li lii du jus. lii sangara la la. te naan ko danger la. te nag fukki dërëm lañ koy jaay. fukki dërëm yombal ko ba mu yomb. xam nga lii tey. maanaam xeex humanité la du sax xeex l'islam mais lii xeex humanité la. xeex xeex doomu aadama la. lii danger la waay nañ ci taxaw bu baax topp ko ba ca source ba mhm. usine bi koy defar ñu ñu ñu ñu porter leen plainte mhm. wala ñu yàq usine bi wala ñu génne leen réew mi mhm. doyen nee na moom ci làmminam la ko waxee mu ne xale yi ko jot a ñaan naan ñëpp dañoo feebar pour l'instant asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna lii nag euh, ñu ngi en direct ci école franco arabe Omar Bun Khattab fii ci campement Ngeko seen mbokk la Mamadou Ka euh, lii ngeen gis nii nag euh, mbir la bu ñu andi ci école bi di ko jaay muy loo xam ne euh, sàngara la testé nañ ba gis ne sàngara la kon ñu ngi bàyyiloo xel directeur école yëpp parents d'élèves yi ak surtout ñuy ñëw ci di jaay ci école yi ñu xool bu baax li ñuy jaay xale yi mu ngi noonu sàngara la dañ ko andi ci école di ko jaay kon ñun ñëpp ñu ànd nekk ñoo xam ne ñuy seetlu lañu di seetantal asalaamaaleykum wa rahmatullah